Porokhane commune bu bokk ci département bu Nioro arrondissement Paoskoto gox bi nag am ay potentialité yu am solo rawatina nag vallée Babalong bi nga xam ne nag moo ko gaaw mu bokk ko ak commune bu Kër ma ba jaxu ba Dabali Paoskoto ak Taïba Niassène waaw euh, commune Porokhane nekk na commune bu yaatu ndax juróom benn fukki dëkk la ak euh, ñetti amoo donc boo ko xoolee day nekk juróom benn fukki dëkk ak ñett superficie bi mu ngi nekk deux cent cinquante cinq kilomètres carrés donc euh, nekk aussi commune boo xam ne euh, am na suuf am na ndox ndax Babalon bi moo ñu bordé ci wàlluk développement commune bu Porokhane amal ay jéego yu am solo loolee nag li ko yombal bokk na ci politique publique yi nga xam ne état bu Sénégal jëmal na ko fii rax ci dolli gunge gi nga xam ne nag kilifa yi fii amal nañu ko jagleel ko wàlluk mbay mi. engagé des pourparlers avec des partenaires avec des projets nga xam ne dañuy investir sur le développement agricole ñëw indil leen suñu suñu terroir suñu commune pour ñu accompagner population boobu. ba bari na am na lu bari loo xam ne tey dañ ko doon jëggaani daanaka bu fekkoon dañ si jëggaani cent waxuñ ne am nañ si suffisance mais au moins quatre-vingts yi pour le moment wala soixante-dix yi am nañ ko ba pare. Poroxaan itam li ñu koy ràññeetle bokk na ci màggal gi nga xam ne at mu jot ñu amal ko fii jagleel ko soxna su sell si di soxna Jaara Buso ci màggal gi nag commune bu Poroxaan di ci jël ay matukaay yu am solo ànd ko comité d'organisation bi. mairie bi participation yu bari la si am. Euh, depuis CLD CDD ak CRD bi bu si nekk rek am na euh, point yoo xam ne mairie bi moo si mos moo si mun a tontu. éclairage public bi aussi avant même le màggal jël nañ deux millions sept cent mille boo xam ne lépp dañ ko jënd en matériaux nga xam ne la ampoule yi nga xam ne dafa lakk ak euh, applique yi nga xam ne dafa amoon problème ñu jël leen defar defaraat leen changer leen. Poroxaan commune la bopp lépp loo xam ne ni askan bi dañu koy yittewoo ci diggante ndox ak courant dëkk yu bare nag jote nañu ci loole nag terewul benn yoon lenn ci dëkk yooyu nag jote fa doon jafe-jafe gannaaw nag enclavement bu ñu ne